woon nga nekk camp pénal prison jigéen ñi sa premier venu bi nga nee takk les premières images lan la woon Ndeye Astou biir camp pénal ci prison jigéen ñi ci loo xam ne dégg rek nga ci daan am en tant que journaliste xëy na nga daan gis image yi bu mhm. à travers des écrans mhm. nga ci daan commenter nga daan gis image yi daan gis détenu daan wax euh, prison ni mu daan demee te mosoo ko dund Ndeye Astou bi nga duggee biir prison bëgguma si sax woon wax vraiment parce que foofu dafa mel ni sama àdduna dafa tukki. bi nga duggee camp bi ma duggee camp pour fàttali camp moom mooy prison jigéen ñi. ma liberté 6 lamin dafa mel ni dafa mel ni sama àdduna dafa tukki ma ni man fan laa nekk nii. man mhm. ci lan laa dugg. ci lan laa nekk Lamine. moment boobu lan moo diggoon sa bopp bi lan nga doon xalaat sa bopp ngay xalaat sa liggéey li la fi yóbbu est-ce que regretté li nga doon journaliste est-ce que jikki-jikki woo xalaat way jur yi xalaat xarit yi xalaat la nga bàyyi. ma mosuma regretté bàyyi sama liggéey parce que sama liggéey passion la ma bàyyi formation yëpp dem def formation journalisme et communication donc sama option la man maa ko bëgg. ak lu mu métti métti man maa ko bëgg. mais bi nga duggee kaso lu la jooyloo kon Ndeyesu. Lamine foofu beneen monde la soo déggee beneen monde. Mhm. kaso moo tax ñu koy wax. loolu beneen monde la beneen monde ñi fa nekk ñoom kese daanaka ñoom ngay wax. Mhm. waxtaanal ñu xam exactement yow li lay metti ñoom ci seen biir ñoom ñooy xam li lay neex parce que yéen a koy bokk di ko dundandoo. Mhm. Lamine premier jour bu ma ñëwee dugg ci salle. man maa ngi ànd ak keneen dañoo ñëw takk dugg ci chambre bi. Mm-hmm. ñu commencé ñu reetaan ma jaxasoo parce que xaw ma xaw ma milieu bi. da ban heure dañ la indi foofu. ñu ngi ñëw foofu ay vingt ay vingt une heures vingt deux vingt deux heures lañ yegg ba ñu ñëwee ñu simi comme ñoom papa lu ñu wax jël suñu ay bagages noté et ñu teg ñu foofu après trois la ñu woon. man ak kenn ki la ñu dugal chambre 3 chambre 3 aussi moo gën a rëy si maf ay moo gën a metti si maf ñu yóbbu foofu Lamine ma dem sama première guddi ma dugg si néeg bi ñëpp di reetaan ma ma ma vexé wu parce que dama ni peut-être tooñ naa nit mais defuma lu tax peut-être yàlla di ma di ma teg lu mel nii. loolu rentré la chambre 3 mhm. xamoo fi xamoo fi dara ba nga duggee ci chambre bi lan moo la gën a frappé ci biir chambre bi. dama ñëw ci chambre bi fekk fa bébé ay bébé yu am un mois ay maam ñoo xam ne am na. ci biir chambre kaso bi. ci biir prison bi ci kaso ay bébé. bébé yu am un mois Lamine ma gis fa ay maam yu am 60 ans ma gis fa sama moroomu yaay gis fa sama moroom gis fa sama moroom bu doom gis fa nit ku nekk âge bu nekk. ñëpp ñi ngi foo ñi ngi reetaan man sama problème moo nekkoon ni ñii lan la ñuy reetaan te ñu tëj leen man boobu problème laa amoon man ñii nañ lañ lañ nekkee di reetaan di kaf di ree te ñu tëj leen fii ma dugg si. boo nekkee arrivante boo ñëwee dañ lay xool sa kaw ba sa kat dañ lay xool. ma ñëw je me maa ngi nuyu bu baax suñu chef de chambre mu nekk foofu turam xam naa duma ko site ma ñëw rek mu ne ma soxna si eh tëbal nga sangu ji. Hmm? ma ni ma ni man sama àdduna sama àdduna yàqu na sama àdduna jeex na man lan laa doon def fii man lan laa doon sax dundee réccu naa ko ma ni man lan la ma yàlla doon indee si àdduna bu fekkee ni man oh. dafa ma bëgg toroxal nan laa ma regretté lu bëri bëri bëri mm-hmm. ma dem mm-hmm. lamin ma ñëw aw ma robb bu ma sol parce que foofu du ñu sol tubéy ay robb la ñuy sol soo xëyee suba robb ngay sol gisanti fa koo xamante nit ku baax moom tamit ñoo bokkoon retour de parke mu daal di mm-hmm. dindi robbam jox ma pour wax ne la solidarité mu ngi fa. ndeysaan ma sol robb bi ma ñëw ñu tëddal ma fuñ may tëddal may wax maa ngi fàttaliku nekkata bu ñu fayee làmp kenn amul droit wax. Mm-hmm. mu xool ma ba ma xool ko rek mu jël loxoom teg ko si gémmiñ ni ma naa noppi bala ñu maa yuux bala ñu maa def ay. Lamine, c'est vraiment. sois sa premier guddi nga war a fanaan prison entre les quatre murs ñaata ngeen woon déjà ci chambre bi à peu près ak chambre bi nan la tolloon. chambre bi foofu nekkul tëddaay bi nan la demee woon chambre bu rëy nekkul chambre bu ngand parce que mandat dépôt yi dañu fa bëri trop. Mhm. lu ci bëri ay mandat dépôt lañ. waaw flagrant yi bëri suñu su ñu ñëwee dañuy toog une semaine lu ko gën a bëri dañuy dem bëri woon ci chambre bi ñoom flagrant mandat dépôt yi. Lamine li nga xam ne def nañ fa 5 ans 6 ans ñoo fa ëpp biir maf tëddaay bi neexul woon bala ngaa tëdd si lal dinga nga ci suuf. di tëdd si bunt douche di nga tëdd si bunt bi. Mm-hmm. Lamine jigéen ñi dund foofu dund nañ lu metti bala ngaa lekk bala ngaa naan. mais mais bala ngaa dugg ci kaa boobu sa première guddi est que nelaw nga. Lamine ak nelawaay bi tëddaay bi nan la woon nan la mel. sa première guddi dafay mel ni. dafay mel ni juge jour jugement dernier boo demee ci yàlla. day mel ni écran boo xam ne dañ la ko tegal. say jëf yëpp nga di ko mel ni ku koy xoolaat di mel ni da ngay da ngay delluwaat ci sa ginnaaw di dundaat di dundaat. di dundaat di dundaat day mel ni dañ la ko tegal ci écran jour boobu je me rappelle. ay 2 heures du matin lañ ma fëggal infirmerie ma daanu parce que xaw ma. at sa premier guddi kaso. sama premier guddi kaso. nga daanu feebar. ma daanu feebar parce que méttiitu xol laa amee woon méttiitu xol bu metti ma jooy ba mënat ma jooy rangoñ mënatul génn sama xol lamin ma koy jooyee di jooyee sama biir xol mënatuma ko. ma fat ma daanu piqué crise piqué crise ay vers deux heures ñu fëggal ma infirmerie ma dem foofu. Mm-hmm. ñu calmé ma. jox ma garab ma ñëw tëdd Lamine ma xëy suba ma rus a génn si biti parce que xaw ma ko. nelaw nga. gëmmuma bët. gëmmuma bët. nga xëyaat ban heure. dama ñëw xëy ñu yee ma 6 heures parce que dañ ne ma dama war a corvée. sama xarit bi corvée mooy lan mooy corvée. mënuma da ngay dem si biti dañ lay jox bale nga dem bale lamin parce que ñu ngi ñu jàngalaat ba tey àdduna. Mm-hmm. musuma woon a xalaatati ni bale sëgg amati na boo demee dañ lay jox bale sëgg nga bale nga fomp ak morso ak ndox nga weñ nga fomp nga ñëwaat soo ñëwaatee tëdd tuuti ñu yeewaat leen encore ngeen rang pour ñu def appel sept pour brigade bi ñëw pour mu mën a dénkaat beneen brigade bi ni ko jox naa la li ma fi bàyyi woon ñu génn ñu appel kenn ku ci nekk dugg sa chambre sept heures du huit heures organisation bu bu bëri dama nelaw foofu Lamine mënoo nelaw parce que yaa ngi rus lan moo tax nelawoo mënoo euh, c'était pas confortable amul woon lal boo tëdd da nga toog da nga taxaw du question sax de confortable parce que sa ay moroom nga fa fekk lu ñuy dund war nga koo war a mën a dund mais milieu bi nga xamante ne adopté yoo ci xamoo lii lan la loolu moo ma jàppoon loolu moo ma jàppoon xaw ma xaw ma mu mel ni Lamine beneen àdduna laa nekk mel ni beneen monde laa nekk di dund mel ni leneen laa nekk damay dem ba mu yàgg may mbég sama bopp ma ni est-ce que réellement man la man est-ce que man mi nga xamante ni tey maa doon wàcc di ñibbi di tëdd suñu kër mhm. tey man maa tëdd ak ful bi tey man tey lamin da nga ciy bokk ay nit ñoo xamante ni da ngay bokk ak ñoom nii lu toll ni bàmmeel ngay tëdd hmm? te doo dégg kenn wallaahi azim doo dégg kenn sa morom puusal doo dégg kenn ni sa morom yaa ngi may gaañ nga tëdd rek. ma tëdd rek parce que fa lañ ma tëddal si bunt bi lañ ma tëddal booy doog a ñëw si bunt bi ngay tëdd kuy jug yaa koy jug lal lalli mu dem kuy tëdd yaa koy xajal. mu lalli boobu ci lan ngeen tëddoon. si ay mère gàddu la ñuy tëdd mais mère benn mère gàddu mën ñaari nit mën nañ ko bokk ñaari nit. bu bu dee si jigéen ñi.